dal leen a jàmm mbokki internet Yaatal Vision ginnaaw bi leen nuyoo lu ñeel nag mbirum Pape Alé Niang ginnaaw lànk gi nga xamante ne bi opposition bi lànkal nañ ko wuy ji Macky Sall bi foofee ca place de la nation ngir feete li nga xamante ne bi mooy indépendant sëpp réew mii di 4 avril loolee nag ginnaaw invitation bi nga xamante ne Macky Sall bindoon na ko lenn ci li nga xamante ne ñoo di opposition bi waaye ñoom it ñu daal di gàntal li nga xamante ne moo di wuy ji boo bële Pape Alé nag di kànn ci bu baax a baax di wax ne opposition bi bii de bu nu wuy ji woon wooteb Macky Sall boo balee dem toog dendeek moom ma xam ne nag amunu fulla amunu fayda te it lenn ci leader yi Yewwi Askan Wi buñ demoon toog foofee askan wi nga xamante ne bii nii seen ay doom ñàkkoon nan seen bakkan ci leen li nga xamee ay manifestation yu amoon ci biir réew mi la loolee kat ñoom buñ ko defee ndax ñi nga xamee ne seen doom ñàkkoon nañ seen bakkan nan lañ leen di xoolee ak lenn ci li nga xamante ne bii nag ñoom pamti pamte gi nga xamee ne doon nañ ko def Ousmane Sonko ak li nga xamante ne mooy fin na jën ko tegoon pompe ko gaz ginnaaw ba nga xamante ne bi nag demoon na tëddi ca clinique ya loolee nag kii mi nga xam le ne moom mi di Pape Alé Niang nee na Ousmane Sonko loolu moom xel sax xalaatul muy dem naan day toog di dend jee ak Macky Sall nee na nag am na ñoo xamante ne ñi ngi jug naan euh, fête de la nation kenn ku nekk war ngaa mën a dem ni feete li nga xamante ne bi moo di bis bi màggal réew mi loole nag nee na ki nga xamante ne bi moo di Macky Sall ñaawte fi ñu doon def Ousmane Sonko yëgoon na ko jàll rek am na benn euh, mbir boo xamante ne bii xewoon na fële ca Saint-Louis moom posté woon na ko ci paasam nee kat ay nit ñoo xamante ne bii dañoo bokkoon ci lenn ci ngóor gi mu ñoo jugoon di wax ne jënd nañ seen i jaas yi ak seen i jet ak seen i ngir bëgg a defanteeg li nga xamante ne bii moo di waa opposition bi te nee na lii képp koo xamante ne bii da ngaa féete woon ci opposition boo ko waxee tey yaa nga fële ca ndungu siin ki nga xamante ne bii nag moo di Yankhoba Diattara digganteem ak sa Seck nag diggante bu naqari lay waaj doon fii mu toll nii ndaxte kat ginnaaw bi nga xamante ne Idrissa sekk doon na jàkkaarloo ak lenn ci ay ñoñam ci waa parti réew mi ci fan yee jàll ginnaaw bi nga xamante ne bii nag toroxal na kii di ba Diattara ci e, mbir moomale ca jataay ba ginnaaw nag moom ba Diattara biñ ko dénkee ministre des sports fii ci biir réew mi moom mii nag di Yankhoba Diattara moom lañ dénkoon vice président bu e, parti réew mi waaye tey jii nag kii di Idrissa Seck nangoo na ci moom euh, loolu poste boobu di vice président boobu dénk ko kaneen loolee nag mel na ni euh, diggante ba Diattara Idriss Seck sëy ba day waaj a dog ndaxte kii di Idriss Seck kat lam-laamee am na ci ne day posé candidat ci deux vingt 2024 yi ñu dëgmal waaye it ki nga xamante ne bii moo di eh, Yankhoba Diattara mi ngi jàppale tànk ba tey Macky Sall di wax ne Macky Sall war naa mën a poser mille vingt 2024 yi te mi ngi ko ciy jàppale bu baax a baax moom Yankhoba Diattara kon daal bu nu déggee seen ñaari wax yooyu mi ngi mel ni yàlla yàlli diggante boobee sëy ba dafa mel ni ma ngay waaj a tas.